I not living up job. So proud of him. okay, don't dare Okay, look at this guy. Mr. Guy. Yeah, but so I think for just the kings. But so uh, as the best to be the. Uh, wala gis teg I don't know was Saho what up it. dégg dégg someone gaay So alone in my mind love is dead I can't believe in anyone def I leer ni sum la waxee sama bopp mooy wax gannaaw leen bu bëri sama gaay ay ci xóot bi de sama kóone bi meen HB waaw HB xanaa Yeah, at the best. Oh yes, the my fight sama guy. Oh yes, the fight guy. At the best of friend Magdo boy DMG. Mas deve na bela aqui, muda. Deve na bela descoberto best. Deve na descoberto best. Nada de juvina com a cabeça, nada de juvina. zaman. jaman, só o neto indiano, tá piruso. Musu kah? koyo semua men só nice, dem uh, len gon fol kon. Semua o nice kon. Uh, One. non wan dafa def nga man noonu il est plus fort il plus fort dans ce game gisoo MC bu amul MC bu xamatul foo jéem amoo buzz rek wan ngay xool wan ngay oo oh, mu wan kay il est il est le ngi pare benn vidéo sax moom ak euh, Hekil ak benn ñu tournage clip bi quoi waaw ah, dafa taa ñu war a di son di tourner clip bi xam naa la mu ñëw quoi liggéey suma gars

nëbbu ci fenn te fenn balaa film bi jeex néega bul yaakaar ci kenn école laaj bi jeex chaque jour nga jàng lu bees ak xarit mu jënd sama gars yi démb dugal naa vidéo YouTube dama xool ko ci Galsen Hip Hop Awards laa doon wax quoi Galsen Hip Hop Awards ma ne Galsen Hip Hop Awards bi waaye di def noonu dama def sama son bi sax gars yi ma ne Galsen yi ma wóor si bi léegi amatul sens quoi day mel ni ngay joxe Ballon door amul Messi amul Chris ah amul Messi amul Chris amul amul Sadio Mané loolu nekkatul Ballon d'Or mooy Galsen yi ma wóor si bi waaye di da koy def ba pare Ballon d'Or la përëm waa waaye di da koy def amul ngaaka amul dip ah amul ngaaka amul dip amul ngaaka amul dip kii comment dirais-je ahlu brique loolu xam nga loolu du Galsen yi ma wóor ay wasa bat dina ko yaa ngi cool dama ngeen xool ko waaye. non bàyyi la ngay wax le job may job moo tax du ma joignable digal ministre loolu nee ñëw naa Rufisque mais tu n'es pas joignable saa yi damay damay joignable de <laughs> liggéey mi liggéey liggéeyu dëmm la quoi daa am temps it takes me all my time ma bro eh moo de what's up Fadel sama gars yi naa leen nag barki Rasulullah dañ may support quoi kañ ngay def chronique si faux de buzz foo bi ah saa yi dafa naa ci chronique dama la Malathion TV fële boo demee Buzz ab boo demee ci Malathion TV YouTube di nga ko gis def naa ci chronique gars yi def naa chronique décortication yëpp. Gareth Junior ak gars yu bro Modou sama gars yi ak ñoo baax. eh Bac Bac xanaa dama entraînement Bac xanaa da nga yaakaar ne dootoo teg si football moo tax nga bàyyi football bi Bac dafa découragé. ah. côté Buzz foofu am na de gars yi am na musicalité de Canabasse dafa dafa nelaw rek. à la base dafa nelaw quoi dafa doon jël ay vito mu effet cash d' accord album la quoi nee na dafa bëggoon anciens yi a wane wu ah booy parce que ci benn benn game gis ay BMJ di tàngal fële tu vois gis kii di tàngal fële ay ay ay Samba Peuzzi ah yow nga Pispa war na ko jéem a drop moom it yeah like this nee naa support you my brother I'm in the South Africa yeah ma sama gars yi ala ji ma bro gars yi day sama gars yi ñoo baax gars yi ñoo deere so gars yi xam nga aji heure añ jot na de ay sama gars yi deere quoi mais posé yaa wax nga dëgg rek neexuma jënd barke rasulullah sax sama waaye jotoo ma xamal damaa jooy bu baay te fi may jooy mooy téléphone bi gars yi dañu koy tere man fafaa di nga oote ba sonn dafa damaa sox ba ñuy jël fekk du loolu de wallahi du loolu du loolu de fafaa bu ñu fi ñuy joobee joobu xaalis la quoi da ngay mënee xaalis te téléphone day indi déconcentration quoi tu vois accident yu bëri yi koy indi man bi may kiwee laa ko xam gars yi dañuy dawal di oote téléphone ba sa xel ne ci xel du jàpp ñaar choc yu bëri indiscipline la loolu la quoi mais sama gars yi dama leen di bëggee sama sañoon yëpp laay wax yéen yëpp laay tontu dama am seen fay yéen ma def meen mau double sec, how you doing, bro? ya Bagi, bagi sama guy. ya what's up? Boy, dah hukum gua. Mari salam. Sawi, memang nama tahu bapak kan bukan asjaf dan mau promosi lagi. Sawi, sawi kan yunus lah indul kok sawi. wooy wax nga dëgg de waaw waaw oh, loolu mooy yoon Abdou Aziz mooy yoon mais yaakaar nga ni after faux de buzz genre ip dafa a am dafa a am parce que booy ndaw yi baas a defal dara baas baas mu def lu mu defoon bis feetal biscuiterie affaire yoon baas mu dul ñëw daxaar du saf ñaari yoon na jox booy seen chance moom le hip hop lu a tout donné il a fait pour tout le hip hop mais lu mu lewal hip hop yëpp jox na ko jox na ko gàlle jox ko oto jox ko marque closing tu vois na encadré booy comme ni Lil Wayne tu vois OVO nit ni docteur Drouet ak Eminem dafal kii euh, góor jàpp ci góor defal 50 Cent tu vois la ñu war a def quoi même nit dof il a ce problème nit dof il doit gën saa boo yooyu mu denc da war a génn mais euh, rek mooy reptile rek mooy produit reptile kese moo nekk fii encore ba game bi ñeneen ñëpp dañuy téye waaye nice nice mais temps Matadi mooy sama Matadi temps yi dafa depuis bi nga ak bés xam nga Matadi moo ko joxaat kii quoi moko moko mayat ki quoi moko moko moo ko xam nga papa amna ni ñoom ni dañuy fay ma yalla ni dekil ni li balagay defal nak ak sen quoi xam nga Eumeu sen deewoon na presque mais combat bu bari balagay moko Gaye moo ak bes noonu la ke mata di quoi léegi mata dafa gëna gëm at bopam bu ñëkkon day téye ay ay bac ci ci rek mais après moy lolu quoi noonu la demee quoi mais dama da bi nice nice clip bi sama mu jëk fat quoi clip bi ku lem sa yoy non mais nga xam mom dafa ñëw xam lu mu doon defoo mooy gaa temps yi bëggul yomu da nga allo yi ngaa ka day caaxaan de dugal album bi mom ah nañu xaar rek te KBC tamit ñoom dañu war a dañu war a recruter quoi dañu war a recruter parce que ils sont dañu trop dañu xam naa lu luy soog a dugg la mais war nañu recruter waat quoi mais ils sont talentueux eh Gareth Junior how you doing ba from Arafat waaye kii dañoo bokk ak Kono moom Gareth Junior how you doing ba bro alay bëgg lu bëri bëri bëri waaye Gareth Arafat Kono bu neex waaye waaw doomu daal bi daal loolu laa ci xalaat quoi bu dee son recul bi tamit moom son boobu moom mbalak la quoi gars yi dañuy waar dañu ñëw pour mbalak gars yi quoi non dañ ñëw pour mbalak gars yi quoi. Eh, xoolante l'officiel gars yi bro. gars yi ma leen bëggee de. waaw leen fëloo chronique yi rek tu vois. démb wax naa ci mooy loolu li ma wax Galsen Niveau Odds bi naa ko dugal ci Instagram rek mooy loolu quoi. yeneen dem Mbalak Thion fële ci YouTube bi fa koy tasaaree fépp. làmb ji hip hop bi lépp laay wax du ma bàyyi dara du ma neexal kenn du ku def lu yoon ñu wax ko ku def lu yoon ñu xoolal mooy loolu. what do you think about narap yi ay narap yi mooy narap yi li ko dal mooy narap yi mooy loolu narap yi xam nga euh, li ma la wax mooy rab bi rab bi rab bi mbuur mbuur ak Kaolack du ñu joxe ay dof parce que dëkku nante la gars yi dañoo dee. mais defal live sa engagement politique bi yee non naa ko def loolu dara loolu naa ko def mais xam naa Facebook lay gën a kii quoi amul problème naa ko def loolu dara. maa toog paaka ñaari boole fi mu laay xottee wax ñu dara ci rab réew bi boog mu fa demee noonu rab réew bi est ce que dafa may dafa low quoi kees moo bàyyi kees bàyyi pis ba moom dem na boy dab li li dal owaan yàlla bu mu ko dal wala effet kees yi yàlla na ko baas gaaw a génn rek euh, du ko fi moom nee na bëggul jiyee place su gabaar quoi du day bëgg ne du ko fi moom day bëgg ne place su gabaar lay deewee quoi fa lay nekk ak booy du ko fi moom dafa def changé stafam ci waat quoi le temps passe du ko fi muy duka bibumira duka duka bibumira boy beureur Il y en a qui disent que Deep a classé Buzz sur le son. Non, je, je pense pas. Je pense pas parce que parce que euh, mon classe me gis moy Deep dafa classe euh, qui la cap classe Whiskey euh, qui euh, la classe euh, euh, le nom de ça Hekil ak euh, ak One Lyrical né len délen topando Whiskey ak ki Whiskey ak xama kan man may may may ki dangoté xamou euh, ki mo jël koro koro corona bi moko jël Euh, remercié ko kële jël son à la Wizkid léegi mu ne leen mu ne leen euh, mu ne leen euh, daneen toppandoo Wizkid ak kii Wizkid ak xaw ma kan man may tàngo dangote maanaam daneen toppandoo ñooñu man maa ngi meeg ma ni quoi si label léegi yooyu noonu quoi waaw duka bi dafa da ñëw garab junior duka bi dafa da ñëw mais duka bi bu muy rab ay BMJ rabuñu booy rabuñu bi ma rek booyee leen ne moo leen boo xaale quoi mais ils en ont profité mooy BMJ ak ak ak ak kii sama pose ñoom kii moo leen kii moo leen kii bokk mais saa yi moom kii na leen quoi tu vois saa kii na leen comment dirais-je profité nañ ko quoi dib may na leen chance mais profité nañ ci parce que benn moment tamit dib dib bi fa bi Omzo clashé Reptile dib dafa na doon lëw quoi mais xam nga man kan moo ko jox idée ba mu génn 221 mais loolu moo sauvé kii bi quoi loolu moo sauvé game bi en moo sauvé Reptile en ko sorte quoi mais c'est dommage que du booy yëpp ñëw ci biir profité quoi booy boobu nu mu dugg sax booy boobu noonu booy booy booy booy Kenzi moom profité wul ci loolu quoi. da ah, nga gis mu ay ay loowa ah loolu la fi indi ay loowa ah kenn xamul lu fi indi dog booy moom yenn son la waaw ah, ki gars yi xut bëgg de oto yu paan yeeg ngay gis quoi non mooy loolu quoi eh Sonko barki rasulaay mooy bu baax bi gars yi Sonko mooy bu baax bi Sonko dafa baax barki rasulaay sama gars yi Sonko mooy lépp mooy lépp soo bëggee Sénégal da ngay bëgg Sonko quoi soo bañee Sonko rek bañ ga Sénégal bañ nga maanaam baadoo lay quoi waaw bu ñu falul Sonko mu di dee ci géej gi dañ yàgg mbëkk yi ñaaru libanais yi di ñu kidnappé laaj suñu mbokk yi 400000 bu ñu falalu Sonko dañ yàgg paayu dee yi di liggéey ba du ñu mës a doyal nekk ay vrai jaam booy chemin yooyu dañ ko xeex baay ko def non je te Sonko mooy lépp c'est le messi waaw bu ñu rëccee dañ toog 400 ko amati comme ni Burkina di jooyee Thomas Sankara ba mu fa demee ba léegi amatuñu ko ñu ngi leen ko jooyee as the best dafa def booy boobu you know what I'm saying oh yes damay gaañ you know what I'm best friend bi noonu le 28 la gars yi ko leen ko ngeen dem jëndi kii bi quoi naam seen mixtape bi waaye booy Kennedy booy ah Kennedy booy Kennedy dafa jàpp ay shout rek waaw ils sont pas matures quoi dafa xaar dañu am problème communication quoi parfois dañuy wax ni nga ah, ndax booy ñëw bind seen texte yi quoi tu vois ils communiquent mal a xool ku leen defal la communication parfois ils communiquent mal quand un homme de la parole c'est que tu sens ñuy wax non mais waxi dof mooy dañuy wax waxi daf yoo xam ne kenn xamul lu ñu niroo waaye soldat du Sonko yi gars yi leen dugg bàyyi suñu wasila bi Sonko daf bi waaw 2024 moo ko war a jël de moom rek a fi ne c'est notre sauveur quoi mooy def affaire yu baax yi eh ki gàlla ko xeer di xin nobile sa kuju kuku ko xeer di xin Laye Cissé Abdoulaye bëgg lu bëri sama gars yi waaw rab gaa seen moom temps yi gars yi seen dem temps moom is moo gën a koñ ñëpp is non is a gën a is moo gën a is moo gën a koñ ñëpp il fait de très bons buts. Mais comme Fomorat. c'est des cons quoi. Ils sont intelligents, mais ils sont à la fois cons quoi. Ils sont 114, moi, je cons. con. Ils sont dof avec les boys. Pas tu rentres dans mais tu dof. Comment papa, tu temps, mais tu es con. Papa, c'est comme jouer professionnel C'est nous jouer, ils jouent, ils intelligemment, mais dans la vie réelle, jouer, ils sont cons. Ils liguent sans Ils football n'avait pas, mais c'est un tas de tout Mais vous sont cash, Ils tak ben un tiaga bi charge len tapas, ñu sont Ñu Ils moy ay ibu ak yonon, ay Ils sont Ils est-ce El Hadj mën na ne kër bi ma ko moom tu vois daanu na da koy bañ boo doon dee mu naan laan boo boo boo boo waxee muy kii cog kii lay cogu lu di sax Macky Sall lay cogu ak ak ak Marième Faye Sall El Hadj mi nga xam ne moo gënoon rëy làmmiñ soo xamul la sama oto bi laa ko jëndee sama kër gi laa ko jëndee xam nga amoon woon na ko nit naturel ma rek bu dee bu dee Gana Gueye il est discret tu vois Sadio Mané il est discret mais El Hadj c'est un vantard tu vois ay Marie Brigitte namu naa la oui Marie Brigitte waaye man booy waaye booy man jëbëri nga I want to know your level self taught man man autodidacte la eh xoolal eh kii madame doy xoolal booy tooy sama ko xoolal nag xut bi am na affaire yu baax nag am na am na pétrole de baj tu vois gon papa is man day wax is dafa sena connard quoi is non is day def ay bid ay omzo suma tooñee nii affaire dof yooyu quoi xam li ngay incarné dafa feeñ ci yow quoi moo tax ma mënu ma d'accord moom fu ma laa tamit moo gën a con intelligent lañ ci live bi nii mais dañoo con quoi seen seen way of BM bi Omzo daal manque de constance Omzo de boy dafa Omzo dina ñëwaat mais Omzo de man day mistake bi dëggantaan bi moo dàqaloon quoi dëggantaan bi moom woo nice dëggantaan bi dafa nice woon you know what I'm saying mais mais kasa dem kii bi mu naan ay séddiq si lay misé waaye day la fi génne soo ko waxee ñuy mer jox ko gis nga bu ñu koy jox Grammy Awards kii bi Ibo Awards meilleur album Omzo demul sax yaakaar woon gars yi sàcc sàcc woon Lyrical woon Lyrical moo ko waroon jël woon Lyrical moo ko waroon jël woon Lyrical moo waroon jël loolu doonu quoi tu vois mais dañ ko sàcc waaw sàcc ko moo abibaalu expresso son bu nice wan wan dóor kosom bu rafet dem pour jël ay tiitaram gars yi jox ko moo tax naa ko war ne ko gars yi mbaam lañ xam naa lu tax ko tey ay ahlu bëri yëpp parce que waaye bu baas ko yéen am seen complexe bu baas la am waaye di complexe bu baas la am te amul waay complexe da def li nga xam mooy yoon quoi am soo daal waaye dañ ko xam nga def jéem xam nga def jaaw dañ xaar moom mooy loolu ka ah you you a I speak English good nice ah mun na maybe xam naa peut être xam naa damay sóob rek damay sóob rek damay napp ci anglais bi rek xaw ma dara damay soob rek <laughs> dama leen napp rek maa film yi ma yàgg seetaan nag ak affaire yi quoi xam nga rek damaa sob nag damay dugg ci yenn affaire yi a sama gars yi ma leen bëgg lu bëri ah waaye su déggal ma jaay ko yàpp sa yàpp tubaab da nga ngay jaay ay yàq jaay balance bi ay yàq sama yaay yaay yàq si ay yax rek boo rey sama yaay naa rey sa yaay de sama yaay ay yax rek nga koy jaay yow eh sama gars yi rab gaa seen waaw mi ngi ñëw de am daala yaakaaroon ni lu mu gën a buzz up daf ko wàññi xam nga buzz up waxoon naa ci buzz up yow yow buzz up Bass Bass quoi que l'on puisse dire grand coach ñoom ñi génn ñëpp c'est maanaam départ bi gaay yi départ kenn gañëw ci Kana Bass gañëw ci Dieng gañëw ci Omzo Dollar gañëw ci kenn gañëw ci départu buzz up bi kenn amul kenn ko si gañee Dieng génn na gis nga génn na ay 4K xaw ma 5000K gis ba léegi il a peine à décoller na day génnaat album si 2020 bi te am na ñoo xam ne xamuñu ko sérieusement am na ñoo xamuñu jee nan tey rek ko xam tu vois boo xoolee di euh, jee bu mu génnee mixtape bam bi hmm, euh, mixtape bam bi jëble na non bi lépp doo ay bëgguñu nga dem ay salaamaaleykum lépp dem direction artistique bi da woon ni kii gars yi dañu ko jox mu nice mais xoolal kii mu génn EP bi mu génn nii gars yi mooy loolu amul promo keroog la dem fële vibe radio a def tuuti affaire tu vois Omzo Dollar bu mu génnee def na grand théâtre mu flop album bi bu mu ko génnee des na lu bëri mu ne ñii base seen papa la woon amoon na benn sa base comme lu nante la dafa maanaam nit da nga koy nangul lu mu nekk mais tey ji fekkee dañoo bokk label base moo teg labelam teg affaire yi wërsëg yamul su fekkee teg labelam bu gaaree bu gaaree range mu tabax gaale bi rek nga mer ne lu mu war am nañ ko war am noonu mënul yàq ah boo demee fële kees ma yang ma ni mais Nicki Minaj lu mu am ak Drake mais gëda gëda amu ko ah Euro amu te c'est des très bons rappeurs mais Nicki Minaj ñoo ak ak gëda gëda ñoo ak kii nu ñoo prouvé ba ba make label bi lu mu mën mooy encadré la tey boo demee reptile li Samba Peuzzi di lekk ak ak BMJ mais Kandji lekk ko Kandji kan moo koy jël musée bu dul waa koñam ah doo booy kan moo koy jël si Fosco yi parce que dafa am kii ils sont bien mais lekkuñu léegi fekkee ne waa ji dama jël ngay siisu naan waa ji mooy lekk lekku ma loolu lay waral départ yi da ngeen nekk si label dip imposé ngeen jëlas mais dip moo job loolu jéemal job yow bul jéem a xool nit ak loolu quoi léegi ñoom seen képp après jalousie lay jig maa ngi gis benn interview Canabaas ñu koy laaj kii Dieng euh, ñu koy laaj kuy sa rapport dafa wax ne moom Canabaas mooy rapport ñu koy laaj kuy sa rapport mu ne man léegi maay sama rapport bopp Omzo daal mi ngi toog fële di nga dégganteeg base yi maa clash donc moo ne tey ji affaire yi yàqu na quoi tu vois ñoom base rebalu leen loolu quoi jalousie bu mooy indi yooyu ay kii ay mën kii moo la mooy kii moo teg affaire bi yàlla moom la dogal may bës nga ci topp am na lu mu leen mani xam na direction artistique léegi ñoom génn nañ doole bës lab wàññeeku na ah doole bës lab wàññeeku na ci ay eh, team rap daal seen ak gars yu ma bro yu na doolay Omzo wàññeeku na doolay Dieng wàññeeku na donc départ bi gars yi départ ci affaire bi amul kenn ku si gagné personne nii gagne Omzo album bi du dara day la dëggantaan bee ko dàq monsieur bi ka base produire tëj ko Moussa ñu def job looloo dàqoon tu vois boo jëlee Dieng bu bëgguñu nga dem bi mooy monsieur bu mujj génne nii Saint-Louis monsieur bi lépp dóob ay million ay ay ay ay nga dem ay salaamaaleykum ay ay ay ay ay ay kii nu mu tudd sax ay héros mais lépp dóob mais xoolal euh, kii bu mu génne épi e bi bullshit tu ñu ngi jéem a tenir affaire bi côté am na musicalité album bi mais desoon na lu bëri tey ji bu jee bu jee dese woon desoon foofu noonu fa lay gën a amee dara tu vois donc loolu la quoi personne ni gagne euh, tu vois ñëpp ci perdre Beuz Lalla perdre na ci Omzo perdre na ci parce que Omzo mi ngi ne def na grand théâtre mu flop parce que Omzo lu mu xamul mooy moom dip moo ko indiwaatoon ci game bi génnoon na diggantaan d' accord neexoon na mais dip moo ko clash euh, mu reply Saint-Ville waaw Beuz monté ko ay vidéo defar affaire yi sotle ko mu am Beuz mu jël grand théâtre Beuz Lalla bi fan ba ko mais après moom loolu ko xaw a monté mu Omzo xaw a naaw quoi yéeg mais après gis nga li des mu jëlee grand terre fa loolu 4 chaises de feesal mu jeex takk yéen am après mooy loolu tu vois donc gars yi nañu bàyyi yoon quoi bu ñu nekkee ci groupe les chances ne sont pas les mêmes quoi donc nañu nekk ci groupe di jalo jalousie baaxul day day rey nit parce que mooy def loolu noonu quoi tu vois bu ñu bokkee groupe bu ñu yemee rek am ñu ñu gedd seen cër mais tey jii dip am na dara ji rek rek kële siisu wala kële siisu mooy loolu tu vois Omzo moo tas

pour pousse booy mettre en avant quoi tu loolu moom dib na affaire leader quoi tu vois parce bu génnoon dib 15 4 bi booy dootuñu dootuñu am pro duñu am buzz quoi tu vois rek toog à l'écart bàyyi booy génn quoi xanaa bu Samba Peuzzi génn ba pare après dib soog a génn quoi tu vois nañu xaar rab bu muy def noonu mooy li ma wax rek rab bu muy def noonu Samba Peuzzi naa kaa assumer quoi naa assumer parce que tey jii mooy li ma wax rek rab boobu muy def noonu dina jouer euh, kii euh, mais boo ñëwee ci xóot bi nii rab ay géejawaay yeneen temps yi sax concert amatul Sénégal moom rab bi vraiment léegi mooy loolu quoi léegi Sénégal dañoo rafetlu nañu ay MC rafetlu nañu ay concert quoi bu njëkkoon concert yi fu ne caaro yi ville de rab la woon mais caaro yi léegi dafa lëw tëngëj ville de rab la woon mais dafa tëngëj suñu rappeurs yi kees bii si bàyyi na du kapi place gabaar la bëgg a yem tu vois léegi authentique bi nekk kër Njaay Lo sax moo moo bëgg a moo moo moo gàdduwaale comment dirais-je moo gàdduwaale moo gàdduwaale kii benn euh, tëngëj en quelque sorte authentique tu vois booy bu mu rab la quoi moo BMJ nag war nañ def benn kii quoi batal bi war na gën a mën a ñaari booy yoo xam ne vraiment waa kii nañ tu vois xaari booy waa na rek mais bi bi mu jël day xaw a toppandoo Attaque de Justice parce que moom dafa defoon ay wat simple mais Attaque de Justice rasta rek moom it mu rasta quoi tu vois Attaque de moom mu demaat ko si maag bi man boobu ñoom ñaar ay adversaire lañ quoi waaw man boobu moom neex na ma trop quoi waaw Pape Moussa Seye bëggee bëggee bëggee petit Pape bëggee sama gars Emmanuel Diop ay bëggee de Baye Fall ginnaaw lu bëri dañuy support Malak Thion quoi lu ma neex laay wax mais teewul leen da ngeen may jàpp Samba Peuzzi ñu xaar Sénégal booy xëy na mu am <laughs> mu am lu kii parce que Feuzy tamit kii bi laax bi da ci rab rab bu nice boo demee euh, comment dirais-je euh, rab kii bi euh, mixte bu 221 bi doon na fa lu neex doon na fa lu neex a neex 221 bi doon na fa lu neex waaw waaw doon na fa lu neex même intro bi tëndën tëndën tëndën moom laa ni kii nee na ma ànd Babs Kile démb rek waroon naa kale émission a Babs Kile il est bien naa ko jëli Babs kooku kaañ la bon Samba Peuzzi mooy bu mu naan teew cheveux kii nga nga kenn loo teg gàlla biir muy intro kii 221 la mais bu mu defee Marie Cheikh Marie bi dafa def Marie Cheikh Marie après bu mu defee Marie Cheikh Marie après loolu moo ko monté tête parce que am na say 1 million de vues YouTube léegi mu ne moom day kii quoi day toog foofu zone de confort am loolu moo koy may xaalis mais mën na rab mais xaalis la ñu bëgg quoi meeg ma ne quelque part on a raison mais tamit am na le revers de la médaille am na le revers de la médaille maanaam ñi bëgg réel hip hop duñ la kii quoi waaw sama gars yi nee nañ BMJ dafa xeeb authenticité mënu ko xeeb mënu ko xeeb daa ko rab daa ko rab xeebu ko de ñu koy tontu ko tontu ah, doo ko tontu su ma la xeebee du ma tontu parce du ma def nawle du ma tontu au fait parce que nit ki boo ko ci moom mooy parce am na dip ñu classe dip lu bëri ah, bii bala classe na dip tontu euh, bu am zoo day tontu ah bu woon adversaire quoi ki ne ma am from Gambia both am looking you every time waaye bëggee authentique just du seen morom non authentique daf la BM James loolu nga xam loolu adversaire la ñooñu ñooy waa UEFA waaw fa euh, ñooy UEFA am UEFA am Ligue des champions Ligue bi ñu fa ne mooy ay Omzo ay Ngaaka Akhlou Brick Hakil tu vois One Lyrical tu vois ñooñu la quoi nit dof moom beneen affaire la dof moom mooy moom moom beneen këram la nit dof ñu dàq binde ci game bi kenn ko oo featuring da lay rey waaw featuring euh, nit dof nit dof kii euh, gentleman euh, su ma su nit dof dóoree du ma déglu sax Elzo bien que Elzo mën a rap trop ah, du ma ko sax déglu parce que nit dof dafa waaye gentleman rek he killed the beat kii moom euh, wan la dikal day way day day he can sing he can rap wan lépp lay def bu doon mbër man dafa complet wan day dóor wan day dóor day bëree day jàpp BMJ du moom authentique waaw BMJ il est bien mais ah combat la dañu ñaar waaw ah, BMJ il est bien quoi il est très bien sax waaw dafa am dafa waane quoi dafa gëm boppam booy la tu sais BMJ am na son bu mu def ak Hakill mais xam nga tax génnuñu ko ñu ko defoon benn cosmo cosmos xaw ma affaire noonu mooy anniversaire yu Hakill bi mais son bu neex mais mais bi mu jëlee kon nag ñun du ko génn quoi parce que Hakill photo anglais yi mu def mu doon génn mi ngi ko def si benn son quoi mais son bu am niveau quoi BMJ ak Hakill c'est-à-dire boy bi mën na raf quoi mooy loolu quoi BMJ il est talentueux waaw il est talentueux BMJ ak kii Samba Peuzzi ñëw na foofu mais ñoom ñaar dafa am différence BMJ mooy défendre euh, dip si côté salle bi reptile euh, kële moom côté commercial la quoi won waaye won ban avenir won avenir waaye won avenir mooy liy ñëw won il est là nga naan won avenir la avenir mooy liy ñëw comme authentique avenir la mais won il est là avenir mooy loo xam ne day ñëw won ñëw na ba pare il est là du avenir you know what I'm saying he's just he's making shit right now man waaw BMJ du ma doon authentique des booy gars yi gars yi nañ gars yi mooy loolu de gars yi mooy loolu tuba BMJ day ñëw BMJ day ñëw maa ngi gis ki Euh, mister featuring moom featuring rek lay featuring rek lay def dafa ne moom gémmi tamit kaw Petit Diop moom it nee na day moom nee na day kii quoi nee na nee na mi ngi waajal futur waaw ñu lay xaar kaw Petit Diop maa ngi gis muy sànni pic muy sànni pic kii Samba Posé xam nga tax Samba Posé kiiwul parce que mi naan gars yi ay daam seen amélioré lañ moom loolu du wàllam quoi parce que moom def nag BMJ kii quoi donc xam nga muy def tuuti tuuti feeg yooyu mooy mooy moo tax yëpp di ñëwoon dof quoi yow da ngay dem def BMJ featuring Samba Posé xam naa boo def featuring BMJ Samba Posé sa gars yi lay doon xaw ngeen échanger tu vois léegi doo kii doo comment dirais-je doo ñëw rek kii mais naan ay daam seen amee yooyu léegi rappeurs yi tontoo ngeen nekk en bus daal rappeurs moom ku ci gën a dof rek nga di kii quoi dañuy créé affaire bu dof dëgg bu ñu waxee nga naan ndax ñi ñooy def seen seen son yi quoi eh, Aliou deux lay rey de man damaa condé gan ma la con dafa condé poudre lay poudre gan ma la con amul problème yi nag commencé defaat ay live de live laa gën a mën a sax vidéo yi damay bëgg a duma ko parce que dama bëri wax damay bëgg a wax comme carrément sax duma ko wax donc rab bi moom mi ngi neex ko waaw

PBS day toog fële kii toog fële daara ji tu vois gars fële la quoi mais Canabasse moo ko téye woon quoi waaw di def affaire da nga def moo ko téye woon tu di def lu nice for the buzz one success for the buzz two success for the buzz three bi mooy bi ay yaas ay mbëggal c'était un low te foofu ñu ngi annoncé maanaam kiiw buzz lab bi maanaam tu sentais que lab bi mi ngi dem déclin quoi parce for the buzz one bi dafa ñëw indi démolition démolir fépp trou bi noonu mais trou bi xaw a tu vois mooy loolu tri bi moom nag si nga xam centre ne gars yi commencé nañoo siisu ñi bëgg nañoo daw ak loolu quoi mixtape met madal gën mixtape met madal moom bu ko neexee tey moom day rab suba mu ne diine ji tu vois il n'était pas constant tu vois mooy loolu quoi ba buzz ab doon su doon foo de buzz foo bi ñu ñëw indi musicalité album la donc album bi non pas besoin di def dañuy def loo xam si moom man je comprends quoi euh, univers bi Canabasse doon defee quoi mais maanaam loolu tax mu indi musicalité a fu dafa war a basse euh, quoi dafa war a co enchaîner projet yi parce que dañu dañu toog dafa feral a enchaîner projet sur projet basse dafa ne nii dafa war a enchaîner projet yi quoi a enchaîner taxaw dafa war a enchaîner wan booy yi génn booy la war a def euh, kii euh, nu mu de sax nit dof sa booy yooyu nga denc génne leen tamit dof gënal booy yi quoi ma di rënk booy rek dañuy rënk booy yi quoi ñoom ñu pénaliser booy yi quoi ñu téye di génn di coob di lekk ñu bëgg a rënk am ngeen li ngeen am ni dof mënutoo def loo deful ñaata show nga def ah non Owan Owan dafa dof maa ngi gis mu def benn teaser Owan joker bi dafa nice c'est que Owan Owan li dal Owan ay otaan ay Owan ay Taïji Chine ah xam nga gars yi dañoo bëri wax rek ay Owan ay Taïji Chine waaye booy yi dangereux Owan day ñëw de Owan dafa dof joker bi la génn mais mi ngi def affaire kii nag Euh, mi ngi def euh, ngi def kii quoi affaire yu fake quoi Owan parce que lu bon bon baas baas accueillir na la ci labelam cher ngeen ay kii quoi parce que man nit bu eh, foofu affaire yu fake lay def quoi Owan warul maa ngi gis muy def ay naan carrière yu ménopause mënutul baax yàllaa ko def a a jox bu ñu nekkee même ay 4 jours wala 10 jours ñu partagé benn affaire boo leen amee problème xoolal ren leen comme gentleman quoi mais def kii baas non on ñëwal def say affaire quoi bien que tu es bien bien rappeur la yow base waaye base bi na booy bi jël naa ko booy bu day xam dara par force base juum booy bu dafa aay mais xam nga xaar bu yàgg bi tamit day soof quoi gis say morom di football remplaçant kenn bu ko ne toog si banc chaque jour saa da may c'est que da gis maanaam ñu la dàq football di football d'accord mais nga toog si banc gis yow ñi di football ñu dàq euh, donc mooy loolu bus is and will be number one Bass la Bass Gré, la Bass la dof dof question mon live mo mooy li ma koy def vous quoi maa ngi dugg sama sama premier live Instagram dégg lu beuri beuri beuri lu sama officiel ah, eh, Konté xam nga bois xaw ma lan waaye nga bind la garat jiño nga bind leerul fa mu arafaat xam nga bu xam nga bois nga lan nga bind leerul de sama a tontu waaw milka kaay <laughs> milka doo kalu gay ah fata waaye booy fata KBC KBC dañ ñëw mais il doit faire des recrutements quoi parce que dañu booy nara boobu il a du talent maa ngi gis nara ak jaay nara ak jaaman def nañ lu nara ak jaaman waaw def nañ lu nice nara ak jaaman son bu na ko gars yi xool KBC day ñëw waaye ngaa ko moo moo la def li dafa yàgg mais dafa recruter ay boy yu tàng quoi amatuñu luy prouvé ñoom yi xam ne ils sont bien quoi mais Sénégalais yi la quoi si ay xaar na ko moom yaa ngi gul naaj bu la gisul rek dañ lay fàtte quoi la moom bu la gars yi gisul rek dañ lay fàtte quoi donc gars yi nañu produire gars yi di gën a booy di drop affaire yi quoi son yi waaye Milka gars yi mooy loolu gars yi dañuy nekk si ay keppaaru Gaston jékki-jékki naagu rek daw seen bopp bëgg rey label bi ñu jógee reyaale seen bopp looloo ci garaaw de Sénégal moom nangul ku ko jiite wala mbokk yi ñooy wax loolu ñëw di nekk ak nit mu jékki-jékki ne kii day dund si yéen kii war ngeen am war am lu mu am tu vois noonu la demee quoi autorisé saa yi wax naa ci ne autorisé booy bu dof la yii ko yi koy wàcc ah non kii koy bis nga doo fekk en fait mais da ngay pousse day kaaw no booy dafa dof BMJ ne ko allo allo que passa hijo de puta non naa ñaari booy dafa dafa nice dafa neex tu vois même tamit Samba Peuzzi Samba Peuzzi bu bu bu ñëwatoon moo kii moo kaw prib dib ñu ubbi benn ñu ubbi benn Omzo daal la mu wette waaye da nga dof Omzo da mu lu mel ni mu wette Omzo mëntul mëntul tëggalu raw Muerte amul waaye Muerte bi yoon dama décidé yéen ñëppay décédé waaye non booy Omzo Omzo dafay caaxaan rek Omzo dafay caaxaan rek sama waaye buur nag da nga fàtte buur full of sense lu mu def ci buur ci mu def ci Muerte loolu loolu loolu Omzo ko mën defati Omzo mëntul defati loolu Omzo kay booy nañ ñu ngi koy xaar rek Omzo kay waaye album bi lu ko neex la def laa wax ni Omzo mais waaye mi waaye non Muerte booy amatul Muerte amatul wallaay jaw elage Assane Bambit c'est sama gars yi am bëggee de waaye maa ñëw dagg vidéo bi nag de man sàmm Instagram de live bi nii mooy loolu quoi xaa ngeen laaj quelques questions rek moom kii leen ma tontu laa gëm gëwma rappeur de yéen ñi laa gëm yéen ñi may commenté di follow di abonné yéen laa gëm gëwma keneen waaw moom ku ko tegal si yoon rek dama lay poudre maa la ci poudre bu bon bi waaye merci waaye bro ne ma tu fais des analyses pertinentes waaye merci waaye bro yow moom da nga baax hélas bëggee sama gars yi waaye li bëggee la rek li mbedd mi wax rek laay ñëw di indiwaat ko quoi man di sama xalaat sa lise pourquoi mais li mbedd mi wax li gars yi wax ni rek mo loolu waaye booy nino <laughs> nino message Instagram de di ma xas nee na si village laa ne quoi man nga am proud to be in my village you know what I'm saying I'm from the SWOD nino booy gars yi nino mooy loolu dëgg laa ko mais gars yi ba la loolu dañuy mer quoi tu ba la ñuy dëgg rek dañuy mer ak bés dëgg laa ko wax ba gars yi di émission la def wax ci mom lu positif mais mu ñaan la laaj bass man ko loolu du ci wareef mais tu vois man mom bo fi ñëwee moy loolu di wax ay ki fi la Karbala toog na dañ ko liggéey man ko baye sama fi nga wax liggéey di daam sañ daam sañ jot ak ba sana ñi ngi xaar waye xaar kanam xawma xaar kanam xawma ma xaar ba xaar ba ci kanam ak ba sa bëgg lu yomb de ak ba sa dafa def film kay film la def comme nga def film rek boole ci Kona Vandam ah, euh eh, Kona Vandam transporteur ñëpp la bolé ci ci album bi quoi friend yi mook mook mook wan bi mooy mooy mooy Vandab mook dib mooy kii mooy Kona xam bi yooyu la ñuy xaar quoi mais dama koy xaar dama koy jugé individuellement il a une très belle nag ak bés voix bi dafa xam nga voix voice dafa baax ci rap boo xoolee wan ñi boo xoolee ñi cartonné ci rap yëpp dañu am voice voice dafa baax ci rappeur am na sa voice muy mel rek doo doo doo doo doo dem quoi boo xoolee dib dafa am voice ah dib dafa am voice euh, ak bés ak na voice am na safara quoi am na safara gëm na boppam mais Pafa il en fait trop quoi da ko dafa gu fi gàtt ñëw di sonal nit ñi mel ni ku ku ku marqué rab gaal seen quoi tu vois donc loolu quoi ak bés am na voice wan euh, lyrical am na voice wan lyrical am na voice euh, kan ma xool ma dafa am voice je Beuz Rap dafa am voice je am na voice Cix am na voice am na voice ma xool ma dafa am voice am na gars seen voice ak day jaay Simon am na voice mais ñoom dañu war a dem retraite ay eh, gannaaw bi ay Simon dañu war a dem retraite gëm leen yàlla ay Simon gëm leen yàlla ay Simon ay Dabrens hmm? non non non faruma ci baas yàlla xam ne faruma ci baas parfois gars yi loolu ñuy wax da nga far ci baas wala lii ak non non faruma ci baas de non non faruma ci baas de c'est que maanaam booy bi war koon dal quoi mais faruma ci baas ngaa ko waaw ngaa ko ngaa ko album bi mooy dernier sens am waaw loolu saa yoo xam ne ngaa ko album bi mooy dernier sens am yoo Dayza Dayza Akhlou Brick waaw ñoom gars yi dof Akhlou Brick Sénégal kenn da leen daa xarab mais duñu assumé c'est duñu assumé gars yi yoo xam ne Akhlou Brick dañu assumé waaw yow wooy Cix dafa war a génne projet xanaa gisoo Cix lu mu def ak euh, ci su lu mu def euh, comment dirais-je yaay euh, booy mu daana ci lu mu ci si hentai bi ak lu mu def ci album bi waaye mooy loolu quoi tu vois mais voice dafa am solo de waaw J21 am na voice about Dizzy Ha on Karabalik song non Dizzy Ha dafa dof mais xam nga rek il est sous il est sous côté am na voice te léegi dafa gën a ñeme nag firéeku na am bu jikul il était timide mais léegi firéeku na mais sénégalais yi booy gis nga Sénégal Sénégal bu ne bu la dugg rek duggoo leen mais bu ñu duwee bër bi duwee la bër bi Sénégal loolu loolu moo fi am yow boo tax booy def dara awa booy def oh, booy booy nag sama gars yi maa ngi bëgg friwol bi dafa am quoi xam nga tey jii boo dégloo bu mel ni friwol wala nga déglu winning ak ak bés génn waaw je parle diction quoi voilà diction tu vois dafa dip loolu gaston gaston dafa euh, dip c'est gaston moderne dip c'est gaston moderne parce que dafa voice dip voice am nag day jaay tu vois noonu demee quoi moo tax dib moom bu même bu dul ay rim sax boo yi bees yi kañ la ci am chronique juste pour day ñëw day ñëw naa leen wàccee ñoom ñoom kay boole leen sa mbax loolu autant di gis BMJ ñoom ñu laay boole kay boo yi bees yi na mais boo yi bees yi tàng yi laay jël de waaw boo yi bees yi tàng yi non ñoom ñoo bokk suñu ne de xoolal ak bes ak bes authentique zes BMJ ah kaw prib dip ah booyee ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk ñooñu ñooy ay ñooñu ñooy ay Sa Thiès ay Siteu ay Reug Reug ñooñu foog ñu daje

mooy bu naan am naa yàpp dere ah, yàpp rappeur sama itel dib naka nga dem di dox nii mais mi ngi def plateau quoi di dox biir plateau message bu ma lancé Elzo la di ko ne man maa moom plateau léegi Elzo ñëw def topp la Zinedine tontu tontu dib ne topp la Zinedine def ay digg mais boo ko xee danaan tontuwul dib te wallahi dib la tontu mën naa waat ne barke rasulaay mënoo tontu boobu la boobu xam boobu sama ngeen déglu mais dem ngeen déglu kii bi comment dire ngeen dem déglu kii euh, bi uy lu tax lu tax lu tax ngay xéet lu tax ngay xéet lépp dibe nga nekk buur ñëpp ay yem ah lu tax ngay xéet bul jël waaye wax yow la mel na nga dégg lu tax dib lay classe mais boo ko laajee ko mës a nangu daanaka classe ko amuñu benn problème gars yi loolu def meen alu dañuy toog naan la booy làkk français mel ni buuba dëmbaaw awa làkk ana mel ni buuba dëmbaaw bu ñu làkk français mel ni masi batan ir air moo yooyu noonu quoi dib moo làkk français moom la fa loolu ñuy def mais bu la koy xool duñu mës a assumer quoi te ils sont très bien alu brique dama leen déglu ils font partie de mes groupes préférés que aar ak mooy loolu mais Dayza Dayza tamit dafa soxor Dayza Dayza moom lu tax def ah dafa dof ay moo tax sa deret xonk ay pax paxu dëgg waaye dip dafa dof dip du ma lay rim de dip ay caxam moo garaaw ay bëgguma nekk buur mais ma def buur xam ne ma nangu naa mënu ma may may bañ waaye non dip dip du ay rim cax ay la xam moo tax moo la wax sa deret xonk mais dip tamit war ko laaj gars yi fa laaj leen de ay sa papa si docteur góor jigéen bi lañ ko yooyu dañ ko war a laaj ay bëgg naa xam nga am na fu mu naan xaw ma mais cax yooyu noonu dib dañ ko war a laaj mais c'est normal que animateur yi bu ñu owee ay 200 da a waa o artiste bi préparer texte yi su ma leen amoon nga xam damaa laan yow eh si donkasi gi ku nëbb sa bët doo gis lëf safara du pour ay doomu satan koy waxal foofu tiktak bi waaw yow laay wax su ma dajee ak Dayza ko yaay nag ku yaa ko yóbbu un million de vues YouTube koy waxal xanaa karabalik ngay waxal wala fight foo parce que alu fight foo nekk nekkuñu ah a ko leeral di nekk féegas néegas ay ñaata nga def streaming nga ah fooy boo ñëwee ba ma jàkkaarloog dip waaye dama koy wax ne ko lii ak lii jàkkaarloog émission ne lii mais ma ah joxuñu ma xaalis employé ñu ma dëgg laa leen laaj alu bril ils sont très bien bien tu vois mais parfois dañuy gaaruwaale boo xëy luñ la kii quoi ah fi la dib def ay don ñu ñu jëkk def ay don pouponnière dib def don ñu aar naan man moom xam nga rek man kay moom xam nga moom xam rek lu ñu def gars def ko yooyu la ñuy def ko balaa ngay nekk premier foog ñu xaar dans vingt ans waxi dof ils sont bien ils sont bien mais ñu laaj man de booy dama lay dama lay laaj artiste boo ko invité lu tax nga wax lii lu tax nga def lii parce que MC dëgg warul bind bind ba pare xam mais du expliqué ay textes am xaa bind ko dañuy bind nga bind waaw yow loolu la quoi waaye gars yi na fi di sonal nit ñi quoi waaw dib dib day waaw dib non dib dib day jàpp mer dib day jàpp mer moo tax ma wax boobu dib ngi naan à part gedd nit man amoo benn problème wax na ko gars yi mais xam nga gars yi duñu déglu texte gars yi duñu déglu texte ay eh, su booy how you doing loolu dib mi ngay wax dib nee na à part gedd nit amoo benn problème moo tax gëm mu jubóog ay elzo mu jubóog ak ay ay kii parce que day gedd quoi dib day siisu su bëggee baax sax xool nga ko kii mais góob ma ne classe na basse quoi parce que di basse bi ñu ko laajee les meilleurs artistes ñu Sénégal ay rappeurs yu yàgg la wax après mu lim basse quoi donc man ma naa ni dib ak basse jubóo nañu fu ne nii ko day dafa xaw a maanaam boo amee xel da ngay tout mais su bàyyee bàyyi na dib amul problème ah, parce que fu daan toog def ne man Akhlou ñoo ñoo jënd sama album jàppale ma ñu ci ay lien donc moom tëjuwul quoi mais boo xool am na yoo def yu ko xaw a génne rek après da lay bàyyi quoi c'est que tamit quelque part tamit il est un peu sincère parce que moom wala mu toog la jëw mais di boo ko defee loo métti daanaka eh, lu ma métti mu mu kii ka kii yóbbu c'est ça nature je le respecte quoi loolu moom je le respecte mais soxorul moom parce que ñu ngi jàppale booy di pousse booy mi gis nga muy poussé waa Reptile mooy kàngam bi dañuy pousse quoi la waxuma la sax fii la booy booy waaw rab rab non booy booy ne euh, booy ba damay faj am booy niroog mais booy yu tàng rab wolof moo raw challenge yi non booy yi dañu tàng jël wanaa wes show wes wes naa ko mu dem ci booy di leen xool quoi parce que booy dañoo yu dafa ngoog rab booy dañu mën rab booy rab trop ils bien ils sont très bien eh Tali wusa ma nigga <laughs> booy Tali dama naa la eh Tali suma waay la quoi I got you my bro Tali bi wallahi sunu Sénégal bi Tali garaaw na de Tali Sénégal métti na de waaye jeunes yi amuñu liggéey ah? ah ay yëngal soow mu am fépp sama koñ gis na sama koñ woy jubóo woy woy jubóo nañu woy euh, dib baas jubóo nañu euh, woy a parce que bu bu ñu cité rappeurs yi rek wul gars yi la cité baas daa sama xel mooy xam nag sama xel dafa ñaaw nag mu ko xelaa ne non moo baas jubóo nañu quoi te daa nañ demalante quoi mais xam incompréhension lay doon quoi xam bu ñu expliqué quand ils sont expliqués en tant que gentleman baas tamit baas moom he is a boss baas dof la quoi day ñëw ne ko mais boo yow lu ma lay daw di ko Dib nag sana no, mais pas dama la invité fële Adrien Senghor ñëw <laughs> Deep barki rek laa yàgg a dee mais mbaam la Dib it maker la oui il est bien Ta xam nga tamit ce que je déplore dans le game moy, ce que je déplore dans le game moy, rappeur soleil rappeur Galsen lu tax ñoom du ñu def remix un son comme comme blue bandi blue lu bandi di ñu dool dal andi am di dof ah ni dof moom tegoon na fi comme ça taxi brick, indi gaayam mais rappeur Galsen dañoo am culture def ay remix mais non pas cette culture tey jii da ngay gis son bu melni, euh, I'm so sorry ah am sori bu bu am sori bu bu bu kii bu bu ahlu brik mais jaamaan tegoon ci ah siyaasal jaamaan tegoon ci ak ak kii euh, jaamaan ak lës diwaan ji ah ak Naara Diouf ah, maanaam mu jël gars yi gars yi riwaay ahlu def ko bis mais streamé ko ah loolu dafa nice loolu dafa nice ah loolu dafa nice am sow sori bi looloo am sow sori nga jël euh, lës diwaan ji euh, jël jaamaan ah jël jaamaan lës diwaan ji jël Naara Diouf teg ko ci am sow am sori nga def boobu remix ah. ñu dem ci lu bandi di nuróol lu bandi di nuróol nga jël dip ah jël dip aara dip aara jël wal na dikal lu bandi di nuróol xoolal timis boobu lu mu nga euh, ah, bandi di lay doon loolu leneen la sama gars ah, jël Omzo teg ko ci lu bandi di nuróol xam nga Omzo dafa na ko remix pour classe euh, dip mais après dip dafa ko tu vois mooy loolu quoi booy vidéo en direct Instagram boo ñëwee gars yi fi ne yaa ngi donc loolu lu nice mais rapport Galsen ils n'ont pas culture de faire remix gars yi dañu def remix américains bu ñu génnee benn son mu dal xoolal rappeurs yi remix teg ko mu nice ah dañu def remix Baye Fall collaboration day dundal game tey jii man su may su dib defee collaboration boobu man su ma demee su ko su dib di concert ñu leen tey kii day ñëw isaan fi euh, kii day ñëw ñu mu tudd sax euh, euh, alobrique day ñëw mais briques yi dañuy dem am na ñoom tey dib donc à part closing bi a ah, ak yeneen ak yeneen yi ak publicité yi da nga war a maanaam tey collaboration tu vois un Yang Teuk Yang Teuk il fait un album avec kan avec Future Yang Teuk il fait un album avec Chris Brown tey ji beneen dig mën a jóg def album ak Omzo that's hip hop loolu mooy business da day jaay mais di gars yi dañuy bëgg rek maanaam tey ji di siisu toog seen label tëju quoi non non booy musique toogul foofu dafa laaj ouverture li ñu xamul ay remix rek a ma metti amuñu xamuñu benn amuñu xamul non non non Non, Matt, il est bien. Matt, il est bien. Ah, Matt, il est bien, tu vois. Il fait des, Matt, Matt, il fait des, il fait des chroniques nice, quoi. Il fait des chroniques nice, le Matt, def, tu vois. Mais, ah, Matt, il fait des chroniques, quoi. Tu vois, Matt, parfois, il fait des chroniques. Il était bien en chronique, mais Matt, mes vidéos, il fait tout le chronique, quoi. C'est mon chronique, moi, je me suivre, quoi. Mais les réunions, de lance boy. C'est bien, c'est bien, il lance boy. Parce que c'est moi, là, quoi. Mais, euh, d'ailleurs, quoi, <laughs> comment dire? Des fois, il y a des chroniques, quoi. Parce que Matt, il chronique, non, mais il gagne, hein. Ah. mat il est pertinent te Fafa daan joxe man tey jii Vito mat mat may ma découvrir ko mat may vidéo ma découvrir Vito tu ma découvrir Vito euh, kii Dieng euh, bu muy génn Beaux Arts mat mat may vidéo laa ko déggee mais léegi daal moom day jël booy di leen pousse teg ay kii man laa xam naa man moom xamul lu mu def loolu quoi mais na ñëwaat mat mat naa kaa revenir def ay chronique mais il est bien gars yi sont bien ah man gars yi laay man man man moom xoolal saay man maa man Baye la quoi West dañuy dégg Mass West sama gaañ la MBT sama gaañ la du bokkuloo kenn amul ñoo bokk affaire bi ñu fi booy nañu ñëw rek

Israël ay Bécaye Mbaye développé affaire yi affaire yi noonu tu vois ñun dañu war a ñun tamit développé affaire ñun ñu nekk ay Bécaye Mbaye ak ay ay waaw waxtu rap aussi waaw ils sont bons laay xool ils sont bons yi ko mën a dundal quoi amul a loolu laa gën a mën a bàyyi décortiquer texte loolu laa gën a mën a waaye su ay rapport booy nga dee booy ko naa laaj ba nga daw damay laaj sax xoolal rime yi dama leen laaj biit yi lépp laa leen laaj interpréter texte loolu laa gën a mën booy su ma décortiquer texte rek nga daw mooy yow décortiquer bu koy firi kay ni paa yi firi kii yi kay alxuraan la koy firi kay dama ko xam dama ko xam wooy wooy Riñse dañ la abonné ci page am euh, wees daana def ay chronique vidéo mais léegi Riñse moo koy def quoi tu vois mais na parfois ñoom seen gars yi parfois dañuy bañ ko mer loolu ay bañ ak gars yi yi ay gars maam nit bu defee vidéo bu baaxul ne eh, war nga mën a ñëw ne vidéo bu baaxul comme tey jii boo xoolee vidéo kii bi euh, vidéo ak bés bi mais du dara Euh, photo bi du dara nga sa vidéo bi baaxul wala nga ak lii parce que yi reverse reverse ak kii quoi tu vois reverse mooy def euh, vidéo reverse da koy def vidéo yu nice reverse da koy def ak ak wii flag mais xoolal dip dip bi mu defee ak le fa clip ba pare yeneen baaxul yeneen clip du dara naaj naaj naaj maye bi clip bi du dara parole yi ñoo ji parole image bi loolu du dara loolu du dara parole yi du dara ñu bëgg def ñu ne nice ku si tu veux être l'ami de tout le monde tu es hypocrite mënul ñëpp mënul nekk xarit ñëpp tu vois donc loolu mënul nekk quoi dafa war a gars yi parfois dañuy war dañuy war a li fi ne quoi man damay wax li fi li ma xalaat laay wax li ma wax mën na bañ a ma li nga wax fi d' la rek quoi mais sama ma d' accord d' accord de te ñu nga naan man noo ma xool texte yi jubóo na ma naan sa ay ñu waxuñu yow ce que tu dis là est ce que mais gars yi amuñu boobu kii quoi amuñu boobu honnêteté quoi mooy loolu quoi. clip foog nga a xaalis booy clip waaye booy clip foog nga a xaalis clip day jaay artiste mais loolu investissement la day génnaat day génnaat clip foog nga génne xaalis booy clip da ngay génne xaalis bu bëri soo génnul xaalis bu bëri noo mën a nekk nag toogaay métti na soo génnul xaalis nooy mën a soo génnul xaalis nooy mën a defee clip allo fële dafa wow ko hmm? sama gars yi dañoo baax gars yi clip a xaalis clip fii Reverse mooy def clip de qualité Reverse day def clip de qualité tu Wii Flag def clip de qualité tu kii moom mi ngi mi ngi jéem a kii quoi comment dirais-je euh, Young Fresh mais daal des na quoi Young Fresh bi des na Young Fresh des na trop VFX moom clip bi ñu kii bi dara baaxul ak bés dara baaxul ci clip bu bon lañ def clip moom Reverse rek Reverse ma xam naa dañoo tàng nag xoolal Canabasse Canabasse fa la daan ñëw kii Buzz Lab Buzz Lab motion picture caméra am boobu muy denc biir néegam ah, ah. yo mbooy dafa dof kaay teg Télé Dakar bi dafa dof Omzo Omzo Omzo il est intelligent hormis hormis rab bi nii Omzo intelligent sama ñaar si Canabasse wala ma ñëw si Omzo tu vois kii euh, Canabasse loolu doon bëgg sa kanal xam nga clip ay nañu dem bi reverse moo ko def ak ay saay fa yooyu mu defoon ci kii waaye di reverse moo ko def après nag mu yox benn caméra am rek foo dem mu naan laan buzz la moo picture def ay clip clip bu mbaam rek doon def mais xoolal bu mu jëlee kii euh, bu baax bi la extraordinaire xoolal un million de vues YouTube ah un million de vues YouTube rek boo ko amee presque loolu noonu li fay ci clip bi loolu da koy remboursé un million de vues bu fekkee monétiser nga sa chaîne li nga monétiser loolu da koy fay quoi tu vois loolu day fay affaire bi quoi da koy fay loolu moom loolu loolu Canabasse defoon mais da a clip ut sa benn caméra koñ ku war a filmer caméra ngénte nga jël ko dañ lay defal clip waaye clip bu bon ngay def waaye mooy loolu de xaalis da nga koy génne booy dañu te mënoo génne benn 1 million wala benn 800000 wala benn 500000 def clip amoo xaalis men loolu mooy fëgg écran dañuy fëgg écran bu caméra yi tooyee nga ngay këfalu li ndongo di ci wàccal sa griffe këfalu jonge ñoo di jaay fondé loolu ju dara men clip bu def Omzo teg intelligent Omzo c'est un intelligent naa la wax intelligent Canabasse il est très intelligent y intelligent bokkuma ak ñoom classe bi intelligent te il a une culture Omzo soo bëggee am culture générale day dugal ay son il est il est il est cultivé il est cultivé Canabasse non, communication non non mais am na le problème comme comme comme Dip généré comme mais Dip doit doit travailler sa communication Dip dafa ko koy defal comme Dip loolu warul ko xam ne da koy defal communication parce que il communique parfois il communique pas. xam ne il n'est pas communication bi day des quoi day des tu sens un peu la timidité il se cherche quoi par rapport ak yow bon, boo nekkee artiste boo xam ne tey jii tu aspires à être un artiste international Dip tey dina taxaw ci plateau ki plateau France 24 meuna taxaw fune donc interview de qualité la war def tu vois donc doit se préparer à ça quoi tu vois lolu man Omzo fu mu dem day wax Canabasse fu mu dem day wax mais Dip quand il parle papa j'ai peur tu vois BMJ papa bu wax moom waxi dof lay wax ay dafa war a BMJ dafa war a bàyyi bu seetaanee film rek jox ko titre tey day ñew na la Volar Mogulis everybody must da suba mu ñew na la Marwan gëna so mu ñew na Edo Tensei maturité BMJ maturité maturité daal boo seetaanee film rek ñew ay Casa d'appel Papel ba nag seetaanee ba di ki life is not a movie man vie bi du cinéma quoi ñoo la ngeen ngeen ngeen ngeen di maturité loolu la quoi des fois dañuy wax wax yoo xam ne vraiment mooy loolu quoi a gars yi maa ngi bëgg de maa ngi bëgg yàgg de mais yéen a ma ko jaral quoi yéen a ma ko jaral sama kono live toog nii bi nii man neex de waaw dama bi mooy sama première live ah clip soxor ki moo ko def VFX boobu dafa nice clip soxor VFX moo ko def nice nice clip soxor bi nice mais bu mu defal ak bés baaxul moom moom baaxul quoi boobu moom du dara Mm, foog ngay fay lu cher parce que bidi jaratul sax ay cent mille waaw waaw mais saa yi nit looy def da ci war a dund loolu xoolal li ñu naan je fais pas ce qui marche je fais marcher ce que je fais saa xoolal booy wat américain booy wat da fay lu cher ay wat 500 war am parce que kooku war la yaakaar pour jënd xaru tabaskeem war la yaakaar pour takka jabar wat da war a fay 1000 francs wala 2000 mais watkat bi na fexe ba salon bi at euh, ma attirant def fa ay télé defar mu nice def ay affaire mooy loolu quoi Omzo moo gën a intelligent rappeur wax nga may sonal yow. Omzo nga mel intelligent Omzo dafa dof ni nga ko joxee rimi lay bindee Omzo il est fort il dof la Omzo lu mu deful da ko bëggul xanaa doo déglu muerte buur boobu dafa waaye kooku dafa Omzo dafa boole deretu ñàkk ak sénégalais mix boobu boo ko yàq dafa mën a waaye la de Omzo di doomaraam Omzo la Elzo doomaraam la dañu mën a la mën na bind mais dans dans la vie là il est très con con c'est un imbécile dof rek lay wax maa ñi koy dof la wala waaw mooy Taïji Chine il est intelligent mais il est un peu boo xoolam il intelligent tu vois boo demee si El moom businessman la El Diaz businessman la déjà business bi sax la grand théâtre voilà El moom il se sent poussé des ailes voilà man El Diaz bu feesalee grand grand théâtre du ay talent du talent de day dem Bamba Fall jënd 500000 tickets mu dem kële jënd 500000 comme ni mbëri def rek bu ñu amee combat kii jënd 100 may kaar ñeneen loolu du talent mais nekk sa koñ bi toj wala da déedéet rappeur day jékki-jékki wala ne man damay def tournée comme ni did wala foo kii buzz la def tournée ndekk-jékki ne man tay Saint-Louis boo demee Saint-Louis amul ay kii nga dem Saint-Louis xoolal gars yi xoolal sold out avant nekk sa koñ rek ah daf ko rab nawetaan ah jël gars yi gars yi nekk sa benn maire bi jënd maire bi maire bi jënd 200 tickets ñëw si euh, joueur professionnel nekk mu jënd mu jënd euh, mu jënd ticket eh, Assane nag Assane Gaye what's up ma bro how you doing sama la Assane Gaye tu vois ñu bokk benn père même nga dem jënd nga feesal ga ñaa feesal na feesal na grand théâtre feesalu ko ak talent ay dóor la ko feesalee du ay talent voilà dib tey ma man dib man dib dib daa xam lu ko tëlee jël xam nga dib loon jël grand théâtre soldat lay doon dib mën na jël grand théâtre feesal ko wala reptile jël grand théâtre dañ ko loué 3 millions dóor ko ak publicité yi ah dib moo daan dib moo daanee lamb ji dib moo daanee lamb ji sponsor yëpp dib jël na ko itel ah itel free lépp dib jël na ko tu moo tax lamb dem jël kële na jël euh, na dem jël kii na dem eh King Baba challenge ak Gadio recruter leen ah recruter leen recruter leen recruter leen waa King Baba challenge mais nice Nara Diouf maa ngi gis mu def benn ma nekkoon tapis rouge mais booy boobu elle est bien Matadi moom mooy sama rapport léegi Matadi moom King Baba man bàyyi naa ngaa xam leen de parce que ngaa naa dëgg ay xuloo wuñu xeexuñu ah ay xuloo wuñu xeexuñu ay classique mooy li ma waxoon eh, démb sama vidéo bi vidéo bi nañ dem YouTube ngeen xool ko nee na non dib xeebu non loolu na grand di mën na jël grand théâtre def ko entrée vingt mille mën na ko def loolu mën na ko def c'est que maanaam tey jii mosuma produire te artiste fa nga reproduire loolu day bokk sa cursus quoi fesal naa grand théâtre fesal naa fi fesal bien dip Pepsi dip moo daanee làmb ji sponsor dip jël na ko KBC Cool Lems dof la waaw ay mata di nag temps yi mata di moom dafa progressé non mata di du nit mata di dafa am jàpp fu mu ne nii quoi dafa jël si ngaaka kii bi benn sow ba si mu naan muy classe ñoom dib naan kan loo ñu teg waaye man féeg laa la teg non mooy a du moom ngaa moom dafa mel ni xel booy ay sant ma sant ma xulóowuñu xeexuñu ay ma doon wax ci loolu bàyyi da wooyu ma ne ay dib dañu am euh, classique sefil ngaa ko dafa am classique tu vois ngaa ko sippi loolu classique la tu booy yu bees yi seen mooy comme comme kii grand yi seen musique 20 la lu muy gën a yàgg di gën a neex mais booy seen musique comme casse agité da naan lundi mardi nga tour amul benn booy bu ci gën a classique comme ça mu ñëw si conseil nga ne booy bi son bi la ñuy xaar ne booy a bind a créer ay classique non problème so loolu mooy mooy mooy dundal bi parce que rab rab moo làmb ñooyam ay eh, Baye Diaz rab loolu mooy rab da koy dindi mais ko teg si yoon quoi mais loolu mooy indi affaire ya ah. il faut ñu affaire mooy astuce bu kaa loolu mooy tenir public bi en haleine boo dugalee dara ñuy xool kii wax interview loolu foog mu ne quoi tu vois donc loolu quoi mais ngaa xam ne recrutement am na booy bi ngaa ko soo mënee ñëw tënkee nga jël booy duka bi il est duka bi bu demoon KBC sama gars yi ngeen gis wu rëy yow euh, ki laay wax duka bi ngaa ko dama ñëwal mi ngi fii dafa tàng jër booy booy Dario tu bi mi ngi fii day woy day rab duka bi lépp lay def te dafa am public duka bi dafa am public dafa am ba xool bés tënkee tu vois non bu ñëwoon mooy loolu quoi non booy mata di lu mata di temps yi dafa xool dafa firi dafa man monsieur mata di laay xaar rek waaw ngaa dabal album bi moom ñu ngi koy xaar mais KBC moom nice quoi nice nice quoi son wu jëm la mais fu ne moom reptile ñoo inondé game bi quoi reptile moom dañoo noyé gars yi dañoo noyé gars yi tu vois moo tax yeneen label dañoo war a bañ quoi ay buzz lab dañoo war a produire ah dañoo war a produire booy booy yi gën a defante gars yi loolu game bi loolu rek kat tey dund fu ne nii y a plus de concert amatul dara rappeurs yi léegi ñoom fës koo la ñuy dóor fës koo rek ay playback non wala ñu mën tëgg ay big concert ñu naan concert bi kii day ñëw parce que bu ñu jëkkoon concert dañu naan concert bi BM ci day ñëw Rapadio day ñëw puis France day ñëw ñoo ñëpp si même stage mais loolu loolu amatul léegi Reptyle dañuy ñëw ba dañuy ñëw ba ba ba ba ba Sicap Mbao tëgal concert comment dirais-je ah euh, tëgal concert euh, tëgal concert kii euh, disi xaa demaat affaire yooyu ay ay ay ay ay scènes te loolu dafa am quoi amatul yenn scènes yu ngand yeeg yooyu quoi tu vois te loolu gars yi ko war a def tu vois mais gars ñu recruter quoi tu vois ngaa ko blende maa ngi koy kii ñoo am na booy bu nekk fii du café booy bi il est boo ko recruter doo ko rëcc moom moom tëngëj il bien parce que booy ñette la ñu woon cash busy kees euh, bi si euh, kii euh, Ducap yi ak kii Pispa Pispa dina bëri jël na ko mais yow Matadi kii ñëwal jël kii def ko fële ci King challenge bi Ducap bu la fayul rek ma ma bàyyi ma la du ma du ma leen il est bien il est bien Ducap yi ngaa ko ñëwal fii nga jël tëngeej nga jël ko Ducap yi pare dafa am base fii tëngeej Ducap booy dañu ko bëgg mais fii lay nekk toog place Gabar boo am dof yooyu muy àndal koy tàddal quoi booy yem talent mais dañuy foo quoi mooy football yi nga xam ne ñu mën a football nekk nawetaan di football ba xëy dee nga nekk paa ñu naan kii ba ma siy toll ba ma siy toll lekk leen xaalis bi xaalis bi nga fi ko lu muy lu li ñu mën mooy jël booy yi leen loolu la ñu mën mënuñu leneen loolu rek la ñu mën quoi mënuñu jël booy yi leen quoi mais ne fii ah lekk pepa lekk pepa mënul ne na booy yi ñëw pis hmm? ba génn effecté si génn fekk ñoom BMJ defee leen kaana ah, kaanam kii gën saaw nit dof nga jël booy yi ne foofu nga leen yow tamit kii leen ah leen ñu ñëw ah sama gars yi affaire mi ngi bu jeexee bu daggee rek mooy loolu ko li ma des xaw ma combien 24 secondes ba ma desee leen quoi man ma sa bàyyi gàddeem ah yow waaye bàyyi ma gàddeem waaye gàddeem comme gàddaam gàddaam yi nekk ci comme nekk ci ci mala pousse ñu paase ñu man du ma sa bàyyi gàddeem waaye na dem fële nga am ay dugal mu ne na dem fële waaye na dem fële na dem waaye ay bu ko ngaa ko jël jël bëgg bandi du ko fi du nit du ko fi waaye du ko fi dof parce que ma gars